di ko jàng junni yoon gannaaw boo jullee farata ba noppi te nag bañ a bàyyi ba def ko fukki fan ak ñeent te daal di gis yàlla wan ko mbir yu làqoo làqoo làqul bu ji sax malaaka yi da leen di gis ñu ñuy waxanteeg moom moom itam muy waxanteeg ñoom ñu di ko defal na mu bëgg